bisimila yéenekaay yu bari ña nga des ca coowal parrainage ba caltineb tay ji juróom ñetti fanweeru janvier atum 2024 le quotidien journal bu Madiambal Diagne bi yéegée ñu ay rango ñi premier ministre yu bawoo ca parrainage boobale journal bi ne gannaaw Aminata Touré Mahammed Boun Abdallah Dionne it ma ngay ŋàññi boobale parrainage di ñaawlu nan doxale yëf ya bam war a jàll ca ñaareelu tour la tribune mel ni ko naan sañuñu ko ndax Aminata Touré ak Mahammed Boun Abdallah ba mu ñor ñu yàq ko liggéey point actu ne ko Mouhamed Boun Abdallah Dionne moomaay ñaawlu système parrainage bi ak nanu ko doxalee journal bi ne xel ñaar dëgg la ca Mouhamed Boun Abdallah Dionne ba Sénégal di Sénégal ba tey mësu fee am Mouhamed Boun Abdallah Dionne dëggal boobale pëcc xoo ca point actu ca Vox Populi Mouhamed Boun Abdallah Dionne naan système parrainage bi ci boppam lan war a xoolaat li muy sàkku ci président Macky ca boobaleb journal mooy mu ubbi waxtaan yuy teeree ci déggoo ñeel élection présidentielle bi ñu jëm bu ko defee coow ban caa topp Walf Quotidien mel ni ku naan coow jiib na ba noppi ndax ca booba lépp journal Thierno Alassane Sall ngi naan bi système li ñu ko taxawalee mooy tànn ay candidat yu ñu bëgg ñu dem Aminata Touré moom di laaj ci ban fichier la nekk Pastef tontu ne fichier bu ñu falsifié la ñu a demee élection ne njuuj ndaaj am na ci bi lépp fichier Ba yoon kenn du ko xatal ci bi ci ñaareelu tour parrainage boo maywul ci lajj lañu jëm journal bi ne am na ñu ca tane waaye am na ci ñoo xam ne bu nu maywul jël ba nuy daanu dana mitti lool ca ñoom yéenekaay wi bi ne ñaar fukki candidat juróom benn yu nu contrôler seeni parrainage ñu jàpp ne njuuj ndaaj ca am fas nañu yéen déposer recours ca conseil constitutionnel jéem a Press ne ña war a dabwaat seeni parrainage jéem koo mottali altine tey jii mooy bi gën a doy waar ca ñoom ñaar fukk ak ñaar ca yooyle candidat Dakar Press ne tey jii lañu war a leeral seeni mbir Aly Ngouille Ndiaye Gakou Maître El Hadji Diouf Mame Boye Diao ak Idi journal bi ne ñoo gën a mittile l'info ne tey la seeni mbir di leer Idi ak ña mel ni moom yéenekaay bi ne fi ni tiit lañu def bay lox ndax bi chance mooy bu mujj ca ñoom ngir a bokk bi ca ñoom la xëy mu di ay administration ak i institution yéene kaay bi ne ñoo taxaw bëgg kar projet pastef bi journal bi joxoon ca DGE Sénat Cour suprême ak conseil constitutionnel fësal seeni njiit ci xëtam gu njëkk booba jamono ca mbiram Mame ak Ousmane Sonko ay avocat Sonko fas yéene wunoo bàyyi weer ci fanweeri fan ñeel dogal bi Cour suprême jël ndax ci rabat dara la yooyele avocat jëm économiste bi di may sababu booba jamono ma nga moom xeex rek boo xeexul mu xeex la jëlee la fi le mandat xëy ci seen politique biñ bëgg a jëlee Ousmane Sonko ne Sonko mooma gaay yi a rob te deewagut ndax yéene cabinet bu Sonko tay la gën a taxaw waaye teewut ña koy xeex na ci système bi tay lañu ko gën a bëgg a sepp ci làng gi point actu feelu ko ne waaye du yomb ndax Sonko mooy maître du jeu yéene cabinet firnde gi mooy Sonko ci boppam neenu moo xelal waa fit ngir lañ doon ŋàññee Macky Sall ca nam falee Sénat ba ñu génn ca journal ba ne kasogam nekkit Ousmane Sonko moo ne ci ginnaaw président de transition ci diirub ñetti at lañu waxante journal bi ne moom la nangul Habib Sy yéeni kaay ba it ñëw ci mbiram Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane a danoo nekk gone yu Marius Sagna kaay bi ne moom Ousmane Sonko bokk bët saalumu réew mi moom Sonko ci ay mbiram la maam góor ngoom xëy ci l'info ma ngay jàngat taxawaayu Sonko moomale jàngat ku yim dugal jàngat it xeex waa guerre bu mag ba booba jamono ca Vox Populi Michael Raynor ambassadeur bu Amérique ci Ndakaaru di xayma tolluwaay politique ci réew mi wax ci tëj mujjug Ousmane Sonko fitna yi fi amoon weeru juin ak njeexital yi ambassadeur bi ne fitna gi fi amoon jaaxaloon na leen lool te itam juróon naw ca ñoom tëjug Ousmane Sonko ak tasu Pastef nag moom rey noo mu la teg doyloon askan wu Sénégal ci seen mat ngir tànn ku leen jiite njiitu mi Macky Sall booba jamono ca boobaleb yéenekaay ña nga ñu yeggee kàddu yum yëkkati ba ñuy sumb liggéeyub mémorial Gorée mu ne li fi xewoon kenn bëgg bëggatul mu xewati fi muy njëndum jaam la lëmbee woon goree laas ne projet booba ñu doon sumb ba mu yëkkati fa yooyele kàddu projet bu yàgg la ndax am na fanweeri at Dakar Presse ne leneen la Macky def gore mooy tuddee chalub ba Babacar Joseph Ndiaye yéene kaay bi ne kenn dootu ko fàtte ba ilaa yow mi diini te Macky ko waral Macky mooma réew mi quotidien taxaw na ba l'islam bi ñuy dund ci Sénégal kenn du ko songu Macky ne ñay def loola taxaw a te mu Guèye mi jëloon liste député bu kenn xamul fu mu jógee yóbbu ca conseil constitutionnel moom la l'observateur xëy ci ay mbiram nettali ñu dund gëm dund ca Canada lañu ko delloosee waaye itam jafe-jafe xel ya mu ca jëlee Air Sénégal mi woon ci jafe-jafe it l'observateur ne ña ngi koy wàllu juróom-ñetti roppalaan ak palang bu koy suqali surnal bi ne teg nañu ko ci jaww ji ngir ay mbiram dox yéenekaay bi fësal li ñu bee seen sàq ak départ ya war a amee ca aéroport militaire Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru le quotidien naan ngeen wàccee jaww ji ñëw leen ci géej gi ndax juróomi marin réer nañu mër kenn xamul fu ne journal bi ne loolaa nga am gannaaw buñ doon kar ab bato bu xel teey ca moom Dakar Presse dëggal ko ne marine nationale juróomi commando marine ñoo fa numéro réew mi quotidien ne ci opération de sécurisation lan ne woon maanaam indi karange ci géej gi libération dina joxe yeneen i xibaar ne jëyee jàng xew gannaaw ban doon def opération anti drogue ca géej ga maanaam xeex bépp xeetu drogue buñ bëgg awale ci Sénégal yéene ne gaal gañ ne woon ay colombien ak i ba tax seen gaal googa suux libération ne waaye ña doon def ndakaaru juróomi marin ya moom yéene kaay dañoo mujjee faatu journal bi ba mu noppee ci trafic dorog ba ma nga ca trafiku bant ba ca Casamance nenu ñaari camion gambien teg nañu leen loxo ca Bunkiling kenn ca ña ko doon yóbbu ñu ko mayoon boobaleb appel yéene kaay procureur ca kanam cour suprême la ko mujjee yóbbu source a yóbbu ñu ca xewu Sadio Mané ba ne Sadio tànn dëgg la def xale bu ndaw la takk mokkal alquran muuru kenn gisu sociaux yi journal ba dellu si ca bis ba Sadio Guissé goneb ga tam amoon fukki at ak juróom benn yéene kaay bi waaye dafa xaar ba mu am fukki at ak juróom-ñett maanaam majeur Sadio doog a def farata yéene kaay bi ne gone gu jigéen ngaa nga tudd Aysatu Tamba élève la ci collège bu ne ci mbaaw nekk it ci kalaasu terminal gone gu jigéen nga it kaay bi ne ku dal la am diine làqatu it ba kenn xamu ko journal ba ne la ca gën a neex nag mooy dafa mokkal alquran way juróom wu góor yéene kaay bi ne xaritu benn bakkan la wu Sana Touré dini jaay ci saajo Mané stade ne nu sayug Sadio Mané ak Aïssa Tamba takk démb ca Kër Masaar yéene kaay bi dinu yëgal jongante bi war a dox tey diggante Sadio Mané moom ak ñoñam ak waa Niger yéene kaay bi ne sunu gaynde noona la ñuy tàggatoo wee jëm ca Coupe d'Afrique des Nations ba Aliou Cissé moom ca boobaleb journal ma ngay jooytu ne matchu Égypte la géej a yëg public bu Sénégal ne nanu taxawee woon ca wowaleb jongante gisaatut ñu taxawee ko ci weneen ñun duñ def leneen lu dul ñaanal leen kendal ak jàmm dig